lëkkaloo naa ak sama naataango ma euh, Mamadou Talla ministre de l' nangu nañu yokk ko def ko quatre salles de classe incha allah donc quatre salles de classe au lieu de deux euh, fële itam huit salles de classe la ak benn bloc sanitaire léegi huit salles de classe yooyu suñ ko paree incha allah nan xool ba xale yi commencé jàng nan xool nuñ ko yokkee parce que xam naa ne le besoin est là ndaxte ñëpp xam na ne éducation loolu mooy li nga xam ne am na solo te waxoon aussi que ne euh, après jokko ak Macky joxe nañ ambulance bi loolu yëpp ci ay action la bokk du du gouvernement du président Macky mais aussi centre de santé bi centre de santé procédure bi commencé na marché bi mu ngi nekkoon ministre de l'urbanisme mais léegi ministère de la santé lay dem dossier baa ngi DCMP dans les meilleurs délais incha allah dinañ commencé euh, centre de santé bi mais nag comme ni ko population yi laajee Kër Massar soxla na aussi hôpital mu nekk hôpital de niveau un wala niveau deux mais soxla na hôpital parce que six cent quatre-vingt mille habitants la li jëm ci inondation itam foog ñëpp jóg ci ngay ngay responsable politique ngay euh, ngay un élu ngay maire wala président conseil départemental ñëpp léegi nag war a commencé liggéey balaa nawet bi di ñëw bu ñu xaar rek ba nawet bi yegsi ku nekk di daw ak sa moto pompe dañu war a commencé liggéey bi léegi am na loo xam ne compétence su la maa ngi yaakaar nañ jot den def seen budget très prochainement voté ko mais aussi am na loo xam ne état moo koy def donc ñëpp daal lëkk lëkkaloo nekk benn ndax ñu mën a soulager population yi donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant tous les responsables am na peut-être ñu ma ci fàtte mais ñëpp vraiment kontaan naa seen taxawaay yéen waa Jaxaay joxe leen l'exemple yéen a ngi sur la bonne voie continuer leen yéen ñëpp ñun ñëpp population moo ñu ñor délégué de quartier yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di aussi di leen sant di leen gërëm di ak ñëpp ñi fi nekk ak ñëpp di leen nuyu di leen gërëm di leen sant euh, merci beaucoup et puis bon à l'entreprise à bientôt pour allah